mbokk yi suivre Leewtoo TV fu ngeen mën a ne si àddina bi nuyu nañ leen ziar leen amateuru làmb yi gars yi nag combat bu mag lañ doon jooy président des promoteurs taxawal na combat bu mag saison bi ubbi na mu taxawal diggante Tapha Tine ak Ama Baldé fii ñu nekk nag mooy Mamel yàgg bu la neexee kër Pape Abdou Fall yaa ngi dégg oto ba lay sax yaakaar naa otoom la waaw oto boobu taxaw noonu otoom la fii ñu nekk itam buntu këram la maar buntu këram la waaw kër gi ngay gis nii kër ab du Fall la fii nag fi lañu fas yéenee dugg xool wax leen ci lu leer nañ combat bi taxaw na nu mu taxawee kañ lañ koy bëre ak naka lañ koy bëree yàgg mar bu la neex nga topp ma ñu dugg si biir kër gi du mën a ñàkk fii mooy kër Pape Abdou Fall kaay fii lañuy dugg fekk fi promoteur bi président des promoteurs dañuy dugg savon maar yàgg am na ñu fi fekk kii defe naa mooy cuun papa cuuna ah, ñoom ñoo yore tafaatin maa ngi lay ziar papa. Ah, Babacar di la ziar di la béggee vraiment maa ngi lay suivre te xawma la woon mais yàlla tey la dogaloon suñu xamel j'en suis fier jërëjëf. man maa gën a fier tamit ci daje ak yow waaw loolu moom am na parce que man da maa ngi la doon dégg mais tey lan moo waral teewaay bi fii kër Pape Abdou Fall. waaw mooy mbir mi moom leer na daanaka Pape du moo ñu pour ñu ñëw teewee. si maanaam suñu signature contrat daal waaw en quelque sorte quoi suñu conclusion waaw looloo tax ñu ñëw fii en tant que euh, management de Tafatine agent de Tafatine euh, ñu teewee ko quoi waaw. pour war a bëreeg Ama Baldé. waaw ah, pour si kattan yàlla au mois de février. février ngeen war loolu jegewul. non baax na quatre mois paax na si préparation déjà ñun on est bien préparé. ça fait euh, daanaka un an ñi ngi si entraînement yi daal waaw ñu ngi si entraînement yi. comme tey sénégalais yi wala boog am na ñu wax ne Tapha Tine Ama waru kon ko daan ñii ne Ama ko mënoon moo tax mu daan ko léegi ngeen dellu siwaat bi yoon da ngeen di dindi la li nit ñi waxoon ne Ama manu leen wala. waaw seetal rek moo tax ñu ñëw dañuy seetal daal. seetal waaw dañuy seetal. Ama dina set. day set wecc dañuy seetal. Hmm. waaw. Ama la de. bay takk sirip la ne bii moom seetal la. dañuy leeral. waaw si kàttan yàlla. kasa bi ñaata la. waa daanaka bare na barewul bare na barewul nan ko denc rek mu doon uh, kumba gi rek waaw. jërëjëf kontaan si yow jërëjëf. sa frère la. waa kii mooy Elas tamit di frère papa Elas sa waay ne na bi yoon da ngeen di setal de. waaw nan bàyyi lépp ci loxo suñu boroom waaw nan bàyyi lépp ci loxo suñu boroom waaw waaw ñu ngi liggéey et mooy de parole et beaucoup d'action. waay Tafa neex naa nekkal. waaw Tafa macha allah waaw moom mooy wax ay jikkoom sax ñu fi jóg waaw moom taalibe la waaw moo tax suñu collaboration mun a nekk waaw. combat bi lu ko ci war. combat bi mooy mooy de parole et beaucoup d'action. mooy de parole et beaucoup merci. gis ngeen ñu topp ngeen ñu dugg nañ kër Papa Abdou Fall. olof nag moo ko wax tung ne du teew ñuy natt si ëkk moom mii moom moo doon wax combat Tapha ak Ama ñu ne taxaw na président ñu ngi lay nuyu di la ziar lan ngay leeral Sénégalais ci combat Tapha Tine ak Ama Balde. gërëm leen sant leen ñi teew fi yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant euh, alhamdulilah rabil alamin combat la boo xam ne ñu ngi ci doon wax depuis mois d'avril euh, am na jamono ñu génne woon ci suñu loxo ci kaw loolu ñu continuer waat. bi saison bi ubbee mu ñu waxtaan cek ak association promoteurs yi ñu gis ni lii kat jar na jàpp ñu ànd ci. ci la waxtaan ak Aziz Gueye ku xam Aziz Gueye xam ni mooy agent wu Ama Balde ak Souleymane Balde ñu koy wax Jules Balde loolu am na euh, keneen ki mën a seede loolu muy président baabu manager waaw ak. Mbay Jàllo donc euh, bi loolu amee ñu waxtaan ba juboo ñu yónnee Aziz Gueye contrat bi waxtu bi may wax ak yéen mu ngi France waaw mu amoon ay amendement yu mu ci defoon sant ma ko it ma rectifié waat amendement yooyu euh, côté bi xawoon a dëgër muy côté Tapha Tine yàlla mi dara tëwul defit waxtaan ba juboo man personnellement ma départ dem ba ci cuun yónni ko contrat bi moom it mu am ay points yoo xam ni biñ ci waxtaanee ñu juboo ci donc ñu tiré contrat yi joxante rendez-vous tey moo waral seen teewaay tey pour ñu jël ku nekk avancé waa kër tafaatin teew nañu Souleymane Balde départ na parce que moog yi daal yi ñoo àndoon ba ñëw ba ci yoon wi ñoom amaa ne ko mu wëlbatiku parce que am na yoo xam ni il faut que ñu xool ko quoi. donc ci contrat bi ñu nangul leen ko te xam ni it business la xëy na ñoom loolu la ñu gis donc amuñ ci benn euh, état d'âme ñu ngi leen koy nangul fii ak suba wala gannaaw suba wala fii même fii ci ngoon xëy na yooyu dinañ continuer waxtaan bi bu nangoo rek incha allahu rabbi ñu connecté waat leen ñu daal di daje def li nga xam ni moo taxoon ñu daal fii teew wasalaam. léegi suñ la laajee comme parce que comme yéen a defar contrat bi jox leen ko. lan nga yaakaar ne wala ñoom lu ñu la wax comme lu ñu justifié ne yan point lañ d'accordul ak yow ba tax ñu ne dañuy teewaat contrat bi xool ko. non foofu nga may ma foofu sa interne à ñun ñaar du dëgg ñun lu ñu mun rek mooy taxawal combat bi waxtaan ak ñoom d'accord jox leen avance li ñu dugal ci biir xam nañ ko ñoom ñu nit xam nañu ko nangul nañ leen ni ay observation lañ parce que it ki validé affaire bi newu fi mu ngi France du dëgg mais xëy na mbër mi moom muy bëri moom moo nekk fii. amul problème loolu amul benn kii de toutes les façons li amoon solo moom mooy tey boo woowee Jules Balde <laughs> dana la tontu boo woowee Aziz Gueye dana la tontu boo woowee Thioune bu Tapha Tine dana la tontu espérons leen tere de la lutte incha allah que danañu continuer waxtaan wi ba it parce que promoteur it lu muy liggéey def ci bëgg gis boppam ñoom ni ñu ni ñuy laaje ay millions yu bari dañ leen koy nangul waaye ñun itam suñu liggéey dañuy bëgg it am sécuriser yenn parties de telle enseigne boo ëllëgee du ñu am dara loo xam ne vraiment dana compliqué ci suñu côté daal waaw. ren tamit bu ñu xoolee saison bi dafa ubbi bërki démb wala démb ñu dégg la ci combat bu toll nii lu waral rek nga ñëw ren rek ñëw rek fëgg nii mu dal nii. non fëgguma de fëgguma de cest dire que ñun làmb moo ñu à suñu liggéey ñun ak promoteur yëpp. loolu moo indi suñu association boo xoolee yi daal mu ngi fi Fallou Ndiaye mu ngi fi ñoom ñoo représenté promoteur yi parce que ñeneen ci des xam naa ne ñu ngi ci ay activité làmb mu dox moo ñu tax bokk ndey bokk bàyyi man bokkuma ci ay promoteurs yi sous-marin c'est-à-dire que di def dara di làq yand mi xam na li ma fay mbëri yi daal ci xam na ko euh, comment ça s'appelle Fallou xam na ko pour rek wane ni promoteurs yi ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ñu ànd ci transparence bokkuma ci ñiy dox làmb di dugg ci ruq ak yooyu pour bañ fàllu xam walla yi daali xam déedéet man na lépp leer parce que it booy jiite da ngay joxe la bon exemple ngay jamono Lamine buy dox combat da ngay jekki-jekki rek ñu ni la làmb bi taxaw na man samay làmb promoteur yi sax ñoo koy taxawal bokk ñooy négocier ñooy fay cachet ñu daal di joxe koppar yi parce que organisation bi sax ñoom la loolu mooy bitu association bi ñu bokk ndey bokk baay bu soobee yàlla coow li bari na ci làmb amul metti na nag il faut le reconnaître mais xëy na loolu lañ yàlla nattoo même njaboot gi nga yor sax léeg day metti mais ndax dafa war a tax nga xëy yor fital rek rey ñëpp wala génne ñëpp kër gi pour se libérer non donc c'est dans la dans les difficultés que ci la ñuy xamee la grandeur de l'homme ren ñaata journée nga bëgg a tëgg bu soobee suñu borom. ñaar incha allahu rabbi benn ouverture saison benn tëj saison. que tey jii sa plan A mooy Ama Baldé te fekkee tey jii amendement yooyu ñoom Ama Baldé di laaj fekkee nanguwuñ ko yow lan mooy sa plan B. non awma plan B pour être honnête te yaakaar naa ni it Ama day bëre man promoteur rek laa. du dëgg war nañu mun waxtaan ba juboo xëy na sax comme ni ko Ama waxee bi ma ko jotee ci waxtaan bi. Euh, gars yi associé woon nañ ko ci au départ mais ca finalité ba moom bu euh, dafa demoon Gambie Aziz ak Jules continuer ko donc kon kooku bu ma xalaatee plan B cela veut dire que pour man exclure naa solution te man je pense que en tant que acteur ci làmb solution rek moom fi tax a toog waaw solution te it yaakaar naa dinañ am solution frère euh, euh, euh, ah loolu ci ñoom la mais man j'ai pas mis les charrues avant les parce que ñoo xam ni jox naa leen contrat ba ñu valider ko ba jël oto ba dal di ñëw jël seen oto jël oto bay ñëw ba ci yoon wi donc am benn mésentente bu ñu am ci seen biir kooku donc gisuma engagé wu ma man mënuma lu dul rek fayal xam nga ko woon nit ñëpp ne leen ñëw leen jël seen chèque xam nga ni kooku il est open il est disponible et il est solvable donc man amu benn état d'âme dama leen koy nangu. non du taxaw sax ay observation la yoo xam ni am nañ ko ñoom ci seen biir donc dañ leen koy nangul. Lamine mu ma doon wax léegi si côté Iba Mar Diop ak promoteur yi ren foofu tam fu ngeen toll ci stade Iba Mar Diop ak arène nationale bi. Hmm. Ibamaar Ibamaaru senegal gépp la dégg naa fi ay kilifa di wax ne dañuy tëj Ibamaar dañuy def li nangam ak nangam Ibamaar heure bu ñu ko tëjee làmb dana dee dama leen di wax lu leer na ko ñëpp dégg ça pas dire que euh, mënuloo euh, am lu bees am ndaa toj ndaa taxul nga am ndaa du dëgg il faut que nga xool événement bu ne dafa am benn contexte ah wala benn environnement bu ñu ko war a defee. arène national pare na dañ ko doon ñaan rafetlu ko kontaan ci trop mais nañ fi bàyyi Iba Mar Diop jour yi nga xam ni seen CNG moo ko moomoon di ci organiser nañ ko bàyyi la promoteur yi nga xam ni seen doole mayu leen ñuy dem arène national parce que làmb du ay caaxaan jafe-jafe yi bari na ci làmb waaye salaamaaleykum un million de te lamb yi ñëwagut ci un million bi ci lan la location stade ak fay ko police ah ba pare nga wëlbatiku di raxasal sa bopp si si yeeg defar nangam nangam il faut que ñu jàppalante malheureusement euh, booy wax nit ñi dañ koy jël jaxase ko wala di la booleeg askan wi amul benn sens ñun ñëpp nous tous des sénégalais je promoteur aujourd'hui demain je ne le serai pas du dëgg. ministre bi mu ngi fi suba dootu fi ne Alioune Sarr mu ngi fi suba dootu fi nekk est-ce que dañu war a liggéey làmb ba mu nekk fii ci ay détails yu ndaw tax mu dellu gannaaw cela n'a pas de sens il faut que ku nekk xam nga marché ba nga war a mën a dem dugg ji sa añ mbaa sa reer mais Ibamar am na promoteur yoo xam ni boo leen bëgg a jëlee Ibamar danañ bàyyi làmb te bu ñu bàyyee làmb gëmuma ni dina am yeneen promoteur yoo xam ni dana danañu mën a attan la ñu doon attan malgré l'expérience bi nga xam ni c'est déjà acquise loolu moom dama leen koy wax léegi. fi ak yow mooy kara gis nañ seen fan yooyu mu doon def bilan financier promoteur yi bilan financier boobu nu ñu ko gisee dañ cee am satisfaction wala dañ cee am fu ñu déggul ak CNG. on n'a pas notre mot à lu tax ñun teguñu fi CNG. on a toujours demandé. du dëgg ñi ne ci làmb nañ ñu boolee ci compte rendu bi mais c'est au ministère de juger les institutions ou bien les structures mises en place ñun waruñu leen mun juger du dëgg donc wax nañu ñun jàpp nañ li ñu wax pare nañ ci ñun xamul lu ñu njiteel que suñu environnement bi ñuy organiser làmb mu tegu ci yoon waaw ñuy toog di waxtaan di dialoguer Mais quant à juger, nous ne sommes pas des commissaires aux comptes, nous ne sommes pas des juges, nous ne sommes pas des magistrats, nous ne sommes pas l'institution euh, républicaine mouille, ministère des Sports, pour dire quoi que ce soit sur la gestion de ma samba ou bien de ma Mademba. C'est une prérogative de l'ONU. Nous, promoteurs, ay bailleurs lañu. Que l'environnement soit favorable à nos investissements. kontaan nañ ci yow. yal na yàlla kontaan jërë ngeen jëf.